سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ñu sante buur subhaanahu wa taala ñaan ko mu wuutu ñu jëli ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp ci baatu assalaamu aleykum tey ji ñu ngi nekk ci ta'wilul Qur'an wala tafsirul Qur'an nekk ci sarbu bu am solo tey ji di ko tàmbali muy suuratu Ali Imran suuratu Ali Imran mooy troisième surat ci Coran bi gannaaw Fatiha ak Bakara moom moo ci tegu moom nag Madinatul la wàcce daanaka sax ci njal maanaam gàddaay euh, moom deux cent aaya la ñaari téeméeri aaya daanaka xaw naa dab-dabal ñaari xisibu alquran waaye nag baqara moo leen ëpp ñoom ñëpp ndax baqara mat na daanaka juróomi xisibi alquran mu ngi ko mottalee ci tàmbali saar bi waaye ñoom ñaar nag muy Bakara ak Ali Imran dañ nekk ay seex ku ne xam na ne ci wàllu longévité Nisa moo ko ëpp waaye Bakara ak Ali Imran ay xarit lañ nga xam ne mënuñoo tàggoo ni leen yàlla sësalee pourtant nii ci zahir bi noonu la leen sësalee ci baatin bi jàng nañ ci ay xadis yonent bi di wax ngëneel yu rëy yu nekk ci diggante Bakara ak Ali Imran mu mel ni daal mag ak rakkale bokk na kii wax ne baqara ak ali imran ñoom képp ku leeni jàng ëllëg yowmal qiyaamati ñooy doon sa avocat di la plaidel ba dugal la àjjana ñoom baqara ak ali imran ñoo lay téel sa seen bopp ci loxo di nga ne baqara saar la wala ali imran yowmal qiyaamati jëmmu leer la ñuy nekk masalan même malaaka yi bu ñu gurguraloon kuy jàng baqara ak ali imran ba yóbbu ko safara ñoom ali imran ak baqara bu ñu xoolee seen liste ñi leen daan jàng gisuñu ci turu kooku ñoom am nañu droit dem safara duñu wax ak benn malaaka ñoo gën malaaka yëpp dugga ba ci fi ñu loge waa ji doon jàng baqara ak ali imran euh, rocc ko foofu dox ak moom romb malaaka yëpp ñëw ba àjjana romba malaaka bi duñ ko sax tàggu duñ ko nuyu sax dem ba ci logement wu keleen daan jàng ñoom ñaar ñu loge ko fa nekk tëddal noppalu fi delluwaat ci yàlla yeneen bi sax indi benn film boo xam ne dafa yéeme ndax moom imagination kenn xamul nu mu toll dafa ne fa ka anni anzuru ila al baqarati wa ali imran tusaddiaani an ashaabi dafa mel ni maa xool nii bis penc yawmal qiyaamati ma gis baqara ak ali imran ni ñuy wëree di défendre ñi leen daan jàngal ci biir nit ñi bàyyil kii ak benn autorité bula kenn xamul lu mu doon ñoom baqara ak ali imran te pourtant wax ko ci yeneen saar yi yeneen saar yi xëy na am nañ gëneel mais baqara moom yashfa'aani li asxaab yi dañuy ràmmu nit kon même ci waxin ku mënul woon wàcce kaamil fexeel jàng baqara ak ali imran jeex na saxaaba yi wax nañ ne ñoom seen jamono bu nit masaana wax jàng alquran ndox saxaaba bu ne lu mu gàtt am na lu mu mën ci alquran mais nee na kunna ida xafida rajulu albakara wa ali imran naudduhu aziman ñoom seen jamono nee nañ bu nit masaana mokkal baqara ak ali imran nee na bët bu rëy lañ koy xoole maanaam boroom xam-xam jamono yooyu buñ buñ doon wax sëriñ yi ci saxaaba yi sëriñ si ustaas yi borom xam-xam yi mooy ñi jàng baqara ak ali imran maanaam ñoom lañ jàppe woon ay sëriñ foofu à part yonent bi kilifa yi gënoon mag foofu mooy képp ku ñu xam ne jàng nga baqara jàng nga ali imran waxuma jàngu tari jàngu mokkal laa wax ndax bu tari ñoom ñëpp ko daan tari te c'est normal parce que la ca nekk ci ay ahkam vraiment ku ko jàngul maîtriser woo ko xamoo ko ku ko xam itam war a doon xam-xam euh, yonent bi nag di wax ne gis nga nit buy jàng alquran loolu triste la nag buy jàng alquran te jëfewul luwaawu alquran yi léegi finalement moom dina am procès yawmal qiyaamati ak alquran ndax it sabotage da gën a nuru dem tribunal loi bu ñu la wax nga ne xam naa ko maîtriser naa ko man koo tari te boo génnee def loola neex vraiment boo delluwaatee tribunal mokkal naa loi yi du la ci génne du dëgg Euh, alquran noonu la mel boo jàngee alquran ba mokkal ko ba pare sa vingt quatre heures yëpp lépp loo def alquran tere na ko lépp lu mu digle doo ko def yàlla nee na alquran ci boppam ngay amal procès ëllëg yawmal qiyaama te yonent bi nee na képp ku alquran layoog yow daan la moo tax nit yàlla di wax ne risque weesuwul nit de nga toog ne danga koy jàngal kaamil risque weesuwul ñu ne lu tax ñu ne parce tribunal ba ka war a atte loi yi mu ko war a criminer boo ko jàngee ci dëj bi rayoo néew bi yow rey nga ko xamoo mais duñ ko bàyyi xel ne woon bu dee bu mu ko jàngal kaamil àdduna tukki moo tax jéggalul ko moo gënoon jàngal ko kaamil boo ko jéggalulee masalan nga defal ko fidaawu laa ilaha illallah nga defal ko yaa xam wala nga defal ko ay lixlaas nga ñaanal ko mais boo ko jàngalee kaamil te yàlla digle ci kaamil yi loo xam ne moom kaamil bi xam na ne waa ji defu ci dara yàlla tere na ci kaamil bi loo xam ne waa ji musu cee bàyyi dara déjà yow yaa justifié position wu Alquran mais bu fekkee nag waa ku baaxoon la lool daan jàng Alquran euh, di jëfe Alquran di ko bàyyi di bàyyi ay terem boo ko jàngalee Alquran Alquran day lool ci waxin nan. yéen jarul sax ngeen may jàng ndax waa ji je m'en occupe maak moom la mais comme nag yooyu wóorul ndax bari na koo foog ne sax mu ngi nekk mu ngi mel na mu war a mel ci melu noonu kon la gën mooy nga jàngal ko rek euh, tabaarakallaahu fidaaw ak yu mel noonu taxul nag ñu ne kenn bu ja bu kenn jàngal kenn kaamil wala boog man gis naa ci beneen style mooy bu nit deewee nga jàngal ko kaamil man li may yéene mooy man li may def mooy damay jël kaamil bi ma yéene ko yonent moo gën a wóor wala mm-hmm. yonent bi moom mooy kaamil bu taxaw boo yéenee yoolu kaamil bi yépp yonent bi nga ñaan nag ci barke yonent bi yàlla yërëm kii gënuloo wóor waaye jàng kaamil neen yéene nañ ko néew bi alquran moom di mattu naan yéen da ma yeb loolu wóorul mm-hmm. ah, moo tax man damay jël yéene yéene bi yéene ko yonent bi nga noppalu mo léegi nag yéene yonent bi kaamil moom dëjëk lu dul dëjë ci yem foo jàngee sa kaamil rek yéene ko yonent bi léegi nag soo paree nag yonent bi neen man xatamal quran ku jàng kaamil ba mu jeex fa lahu daawatun mustajaba yàlla dina la ñaan gu mu nangu bu boobaa loo fa ñaanaat rek yàlla nangu ko mais yonent bi nag indi image bi ne alquran nag boobu nga xam ne dafa am ñu muy demal procès ëllëg yowmal qiyaamati am na ci benn cas boo xam ne koo xam ne dafa jàng alquran ba maîtriser ko waaye lu ko alquran digal defu ko lu mu ko ko balaa kenn di taxaw alquran mooy ñëw taxaw weex tal nag sol yëre yu weex tal ne yàlla yaa rabbi uxkum bayni eh, yaa allah bok uxkum bayni wa bayna haada yàlla atel sama diggante ak kii yàlla ne alquran te bu laajte yàlla mooy alquran alquran mooy yàlla dimension la rek ci moom moo tax du ne yaa rabbi yaa allah lay wax allah yow allah rek leen sama digganteeg Mor Njaay bi wala Mor Diop bii mu ne lu tax mu ne ko kaana yaqra unii daan na ma jàng wala yatamiru bi ama awamirihi te daawul jëfe dara loo digle ci man wala yantahi bi nawaahi daawul maanaam bàyyi lenn loo tere te wa kaana yanaamu bin layli te da nelaw guddi gi biddanti te ku ne xam ne képp ku mokkal alquran li ñu la sant guddi gi mooy yaqumu layla del Qur'an da nga war a jug taxaw di jàng Alquran di ci naafila nga aw def dara euh, yàlla commencé réglé bu réglé effectivement aaya yàlla nee na dee leen nga gis ne aaya boobu jëfe woo ñu ñu punir la ci loolu daan leen woor daawoo woor ñu punir la bu leen njaaloo daan nga ko def ñu punir la bu leen fen nga daan nga ko def ñu punir la mais aaya yëpp buñ la jàppee punition yi day mel ni daal ay ay benn aaya bu ne yeew na la fenn waaw ku ñu yeewandoo ba six mille aaya ak lu teg pare juróom benni junniy buum kuñ ko yeewee neewoo ngodd léegi nag ñu ne nañ ko diri kon kii yay nañ ko nañ ko diri yóbbu safara yeneen bi nag nee na buñ koy yóbbu safara lay wax ne maa ngi mel ni maa ngi imaginer xam nga jëmmam jëmmam lan moo ci nekk alquran parce que jàng na alquran ba maîtriser ko est-ce que qul wallahu ahad bi nga mokkal nekkul ci sa jëmm suratul fiili alam tara kayfa bi nga mokkal nekkul sa jëm yeneen bi nag ne comme alquran du lakk te waa ji jotoon na mokkal alquran léegi yeneen bi ne maa ngi gis ni saar yi nag ji rocc koo ci jëmmam par benn moo tax diw xaafis la rek kàjjana la jëm lii de xadis la moom yonent bi ko nee na ma gis fatixa génn ci moom te fatixa ku kuy ku nar a taxe du génn ci sa jëmm ma gis ko mu weex tal taxawe na xam nga nit ñi am nañ déception de Euh, li falax génne taxawee na le naasi génne taxawee na le lixlaas génne taxawee na le euh, euh, suuratu masadi taxawee na le suuratu nasri taxawee ñu koy rocci par benn muy rocciku di rocciku ba cent douze saar yépp génne taxaw ñépp nag mu des nag ñaari saar muy ali imran ak baqara ñoom nag ñoo ne duñ génne duñu bàyyi waaji te ñu ko àjjana nee na yàlla nag ne leen nag sama atte jiitu na waa ji warul dem àjjana mu mel ni ñoom dañ am réticence nag ndax bëgguñu ñoom nit jàngaleen mokkal leen di dem safara yeneen bi nee na nag bras de fer boobu mu ngi mel ni maa koy gis tu soit di aani ñuy défendre waa ji mais di défendre ci waxin yàlla itam di doxal eh, kéemaanam ñuy xëcc di bu mujj gi Ali Imran sede génne avec tristesse weex tal taxawee na le Baqara ne moom du génne ndax dafa am doole ñuy def lu ne muy bërti bërti di bërti bërti ba dernier moment Baqara yonent bi nee buy génne rek ñuy sànni waa ji safara a Baqara rek fekk Baqara mu ngi ci jëm waa ji du dem may laaj ndax lii tristul ku lii dal xam nga ne sàggan nga ñaari saar yi looloo tax kon mu am particularité muy Baqara ak Ali Imran deux cent aaya la léegi nag suuratu Ali Imran mooy la famille d'Imran la famille d'Imran lay tudd kan mooy Imran ñu ne ñaari Imran moo amoon ci bani Israil moo tax saar bi exclusivement daanaka bani Israil ñoo ko moom moomaat au delà de li nekkoon ci Baqara yàlla li mu doon wax ci Baqara yépp presque li ci ëpp juif yi la doon indexé bani Israil lañ mais juif yooyu dañoo am ay doom ñooñu ñoo mujj doonaat chrétien yi ñooñu itam ci bani Israël lañ doon wàllu chrétien yi nag ci saar bii la koy indi exclusivement moo tax Baqara ak Ali Imran presque euh, juif yeeg chrétien yi ñoo ko séddoo mais ñëpp ci bani Israël lañ to euh, lañu lañu bokk moo tax benn waaye ne ñu ngi sant yàlla bi yàlla wàccaatul beneen alqu beneen alquran après Muhammad ndax bis bu yàlla wàccoon beneen kaamil gannaaw bi ñun lay dénoncer mm. les musulmans te nee na bu boobaa lépp lu mu yàkkoon xeet yu jëkkee ñun dinañu yàkk lu ko raw ndax lu ñooñu commettre ñun def nañ lu ko ëpp ba pare continuer di dund mais rus maanaam suturo bi yàlla am ci xeetu yonent bi moo tax mu faf def xeetu yonent bi ak téere téere yonent bi ñu mujje nga xam ne ku mujje moom xam nga noo mën a mel itam kenn du ko xam balaa sa sutura xaweeku yàlla yàlla fat adduna bi adduna bi tukki yëg nga ni itam yowmal qiyaamati noonu lay demee ci atte yàlla day atte xeet yëpp ba rek ñëpp ba ñëpp dem ñu soog ñoo atte ngir bañ rek ñu yëg ñu ne mais yàlla baax na ummatun muslimatun wa rabbun ghafuur léegi nag lii bi mu xewee euh, année deux maanaam yonent bi bi mu gàddaayee jóge Màkka gannaaw treize ans ñëw Madinatu Munawwara dafa def trente mois ci waxin ba trente cinq mois yu jëkk yi doon administré nag état ndax léegi ne woon naa la bu njëkk prophète la woon mais bi mu xosee gàddaay yi ba ñëw léegi chef d'état la chef d'état nag warul am ay relation bilatérale hmm? loolu nag la yàlla organiser jullit yi ci trente cinq mois yu jëkk yi yonent bi nekk ci Medina sept mois yu jëkk yi daf ko defal li ñuy tudde tey palais ndax mënoo toog installé te kenn installé wu la ci pale bi ba pare pale palais jullit yi mooy jàkk ci bi sept mois yu jëkk yëpp jàkk doon construire juma juma ji ci la utale ay logement am kon loolu mooy palais bu modeste nag bi mu ko defaree ba pare naka la pare rek yàlla euh, sant ko mu def ay expédition euh, mu commencé li yàlla jëkk farataal ci moom mooy xeex ci yoonu yàlla mu commencé yónni ay buus ak ay saraya tudd nañ ci ci suuratu baqara ci gannaaw sariyatu abdullah ibnu jahsh nga xam ne daf ko yóbbu yónni ba naxlata ak ya ca xew ci wàllu xeex na rajab ak xeexul rajab détail yooyu bi ñu dellusee yonent bi dafay yëg ne waa Makka ñoom itam kitewaat nañu foofu xam ne yoonu yaman bi wóoratul ñu ngi dem Sham bi ñuy dem Sham nag romb Madina yonent bi ne nañ dem ko ji ji bi ñu demee loolu mooy badrul ula ba ñëwee fekk nañ Abu Sufyan ndekete jàll na ñu dellu siwaat nag di xaar retour bi retour boobu en retour retournant ci la dem moom koj ko loolu moo tudde badrul xaswatu badril kubra bi ngay dégg Abu Sufyan ñoo demoon euh, euh, def commerce bi ñuy dellu si ak seen njaay mu rëy moom maanaam seen marchandise yu rëy yooyu yonent bi ànd ak jullit yi trois cent treize personnes précisément doon leen dabu ji ci la xeex boobu jota am Euh, loolu ba tey ci trente cinq mois yu njëkk yi la de même bi jullit yi nag demee xeex dañoo am lu ñuy tuddee bettaange ndax euh, li waa ji di wax xeexu tàppet xam nga xeexu waa ji tàppet waa ji dafa génne ñu nekk gaynde gi ne mu tiit kenn wax ko sax moom moo janoo gaynde gi ne tël yem ci gaynde koo xam ne nag bu ma saana gaynde xëm kooku bu gisee gaynde lu muy def bi mu gisee gaynde mu leer kene gaynde gaa ngi nii mu anticiper nag deewam mu di xool gaynde gi gaynde gi di ko xool ci bët yu xonq cur waa ji xool-xool xamul lu muy def rek mu daw daw daw ku ragal rek soog a gaynde gi bi mu ñëwee nag ba ci gaynde gi dafa kotta gaynde gi maanaam dafa yéeg ci kawam rek kotta ko nag mais kottu kii bu ma ko bàyyee mooy man man dee man mu di ko kotta jëmee quatre heures de temps nag moom kott ko ngir yàlla xeex mais da nga kott rek pour dégg ba mu dëgër kott ko kott ko jëme quatre heures de temps gëmm nag ndax ragalam fit wi na tëf tëf tëf mu dem ba gaynde gi yëngootu ndeke gaynde gi dee na bu yàgg yàgg yàgg mais moom bu dee na du bàyyi affaire ndax bu ko bàyyee gaynde gi rey ko parce que comme ven yi doxatul gaynde gi ven yi doxatul moom kott bi yàgg na te ven yi kii gaynde gi nag dee defatul benn activité bi mu demee nag ba yàgg nag la daanu waaj naan wuy sama day njëkk rek gaynde gi yëngootul mais bi mu laalee laal gaynde gi yënguwul mu mënul gëm ne moom moo rey gaynde gi maanaam lan moo tax mu rey gaynde gi ragal bu métti moom ragal moo tax mu rey gaynde mais kooku bu demee dëkk ba ku mu nee rey naa gaynde dañuy dañuy dañuy daanu ci suuf ju yi itam mel na ni loolu dal leen dal na leen parce que dañoo demoon avec trois cent pour doon. seeti ji Abu Sufyaan mais demu ñàkk a pexe ak demu ànd ak yonent mais amuñu ñoom amuñu dara ñaari nit a ci am fas ñi ci des ñëpp ay tànk tànku neen lañ doxe des dizaines de kilomètres ci mbooya mi yàlla ci diggante bi farataal fi weeru koor ñu premier jour koor gi vraiment dix jours yu jëkk yi la ñu def rek après quitté dem ñu lekkuñu naanuñu amuñu lu ñu war amuñu ay dàll amuñu yëre yu baax amuñu dara lañ jotoon a am dàq nañ leen màkk ñu ñëw fii xam nga loolu métti na bi ñu demee nag euh, faf sax la gën a metti bi ñu ne leen Abu Sufyan euh, mu ngi dellu si ñu toog doon ko góolu à leur grande surprise ñu ne leen Abu Sufyan déjou na jullit yi ba dem ñibbi kon ñoom mili millions yi ñu doon xaar ak milliards yi affaire dem na fi ñuy waaj a wax ne kon na ñibbi garaawul ñu neen déedéet waa Màkka ñoo yabal mille personnes mille gawar ak seen i maanaam seen i seen i seen i jàmm ak seen i fas ak seen i armement yu doy nee nañ ñoom du ñu seetaanati ñu leen di koj dañuy ñëw xeex ak yéen par force ngeen rey leen wala ñu rey leen xam nga jullit yi kon gën nañu am problème xeexu nag ragal boobu la ñu xeex ñoom jullit yi trois cent treize personnes contre mille bi ñu xeexee kenn ku ne gëmma rek jox yàlla sa bopp jox yàlla sa bopp ñuy xeex di xeex ba yëg ne xeex bi jeex na bi ñu ximmee xool ndekete ñoom rey nañu presque genn wàllu yéefar yi ñi ci des daw nañu rey nañ ci ñoom soixante dix personnes ñi ci euh, jàpp ci ñoom otage soixante dix personnes te soixante dix personnes yi bu laajte les dignitaires lañ rey maanaam soixante dix personnes yooyu bi mu deewee presque màkk ku amati solo amatu fa ndax bul jàpp mille personnes yëpp ay dignitaires lañ mille personnes yëpp daanaka ay ñu ñu jëlee fii ak fële ak fële. mais dignitaires yi duñ mat deux cent personnes ci dëkk bi ñooñu nag la ñu rey soixante dix personnes ci ñoom jàpp ci ñi ci des otage soixante dix jeexuñu moo tax waa Màkk keroog lañ jeex presque ña fa des at ñëpp seeni doom lañ <laughs> léegi loolu noonu ñoom daf leen jaaxal yàlla na nag bu leen tiit maa ci maa ci maa ci teg loxo léegi nag victoire bu toll noonu yeneen ñeneen ñi des ci arme bi mooy mille mille personnes yi ña ca desoon muy huit cent et quelques ñii daw est ñii jaar ouest ñii nord ñii sud ñii jaare foofu teggi màkka dem yeneen i dëkk euh, bi jullit ci ñëwee nag triomphe boobu musul am ci àdduna ñuy jubilé nag di jubilé wax digg yàlla kontaan lool euh, époque boobu la saar bi wàcc bi ñuy jubilé léegi dañoo dem ci euh, maanaam chrétien yi xaw ma dañoo dem ci juif yi ñu dëkkaloon naan gis nga gañe nañ gañe nañ yenent bi ñëw ba ci ñoom ne leen yéen bani Qaynuqa yéen bani Nadir te ngeen a tuub balaa li dal waa makk dal di leen dal ñu ree ne ah dafa mel ni yéen nag day commencé rakkaaju de da ngeen ëpp ah. seen victoire u démb bi moo tax ngeen rakkaaju ba commencé bis billahi bis boo leen ñu cokkaasee ba ñu xeex di ngeen xam ne mosu leen woon dajeek ay góor ñun ñooy góor ñi te ñoom ñuy wax mosu ñoo xeex kat ñoom mënuñoo xeex man ba su ñoom mën xeex ba yow man xeexaat ci duñu xeex di tiilal jullit yi te ñoom ma xeexuñu ñoom xeexuñu commerce lañ xam léegi xew-xew yooyu nag la yàlla dajale léegi nag euh, bi lii xewee damay laaj nag victoire bu amee ci dëkk léegi est-ce que les pays limitrophes ñoomi it duñ def ay délégation ñëw fa. dëkk ba commencé am influence léegi état islamique mu ngi soog a taxaw euh, scientifiquement ci nit ñi parce que yu mais ndekete waa ji am na doole parce que daje nak waa dëkkam ki la automatiquement dëkk yi ko wër yëpp nag dañuy bëgg a def délégation gérer seen relation ak moom bilateral loolu moo jur lii léegi ñi njëkk ñëw nag mooy délégation wafdu Najran Najran benn dëkk la bu am influence mais dëkku chrétien la boo xam ne am nañu seen roi am nañ seen jàngu jàngu église bu mag am na fa ay prêtre yu fa nekk ak ay tabarakallahu seen saint yi mais am na fa public ñooñu nag ñoo constitué une délégation de soixante personnes y compris y compris leur roi leur prêtre ñooñu bariwuñu ñu indi nag alal ju bari indi yóbbal bu bari jël seeni gëléem ne daal vraiment Mohammed comme gañe na waa Màkk war nañu dem ba xam ay biiram nag lu mu doon ñooñu nag ñoo def délégation ñëw bi ñu ñëwee yonent bi euh, palais bi mu am mooy jàkka ji te jàkk ji amul dër suuf rek la foofu nag la leen dalal ñu lalal leen fa ay napp ñu dugg ci biir jàkk yi ci la xam ne ndekete ñoom mën nañ dugg ci jàkk ndax lu mu dee dee gëm nañ yàlla ñooñu nag avec soixante personnes yi dignitaires yi ñooy jekki-jekki di def dialogue bi yahud yi itam déggee ne chrétiens yi ñoom def nañ délégation ñëw ci yonent bi la automatiquement est-ce que du am ñoom lu ñu ragal mooy est-ce que yonent bi mbaa du ak ñii pour dal seen kaw ñoom ñu organiser ñoom ñu ngi ci quartier périphérique yi ñoom ñu organiser une délégation ñëw rejoindre ñi xanaa kon les trois religions révélées ñëw na ci lañ fa organiser nag benn panel benn sommet benn dialogue euh, judaïo chrétien o islamique boo xam ne ni entre les juifs les chrétiens les musulmans yàlla ci saar bi la jàngalee les règles de jeu entre les euh, euh, euh, les confréries différentes et entre les religions différentes yàlla ci la ko jàngale yàlla ci saar bi la jàngale dialogue wax ne warul ñàkk kersa mais yàlla ci saar bii la jàngal les règles de dialogue da ngeen war a déglunte boo leen dégluntee ba pare ci ay argument après yow nga tontu ba pare apporter ay preuve et cetera et cetera lii buñ ko doon adopté suñu débat télévisé yi suñu débat radiophonique yi est-ce que dina am ay saagante xeex wala tujaadilu ahlal kitaab illaa billati hiya ahsan yàlla nee na ki ngay débaawal na nga ko respecté d'abord kon relation bilatérale la yàlla bëgg jàngale fii mais ak dialogue ak sommet internationaux yi nan lañ ak panel yi nan lañ war a waxtaanee suñu biir discours yi nuñ ko war a tenir avec respect mutuel loolu la bu yàlla bëgg jàngale ci saar bi est-ce que jaaduwul hmm? léegi loolu mooy mooy actualité mondiale muy relation bilatéral mais yàlla ci respect bu mu am ci ñaari communauté yi ñëw daf ko bañ ba tudde saar bi seen bàyyi ñoom ñaar seytal bii wax ndax Muusa Muusa lan ngay wax ibnu Imran Muusa Imran moo ko jur Haaruna Imran moo ko jur moo tax Muusa ibnu Imran ngay wax Muusa ak Haaruna ñoo ko ndey ak baay te ñoom juif yi Muusa mooy seen kilifa Haaruna mooy seen soppe ñoom Haaruna sax lañ gën a sopp ci Muusa ndax neen Muusa dafa naqari leen mais itam chrétiens yi kan mooy seen numéro un Isa Isa ibnu Maryam Maryam ibnatu Imran wa Maryam ibnatu Imran la automatiquement au carré ñëw na baatu Imran ñoom séddoo nañ ko mooy baayu Moussa ak Haroun mais ak maamu Insa ndax Insa bu amoon baay ñu mën a wax mais amul baay kon moom baayu yaayam lañ jëli ji maamam koy Imran léegi nag buñ nee Imran au carré mu ngi mel ni ñaar ñoo dajal ñoom ñaar ñëpp sant Njaay nga ne leen njaay au carré boo nee Ali Imran rek déjà tudd nga maanaam wuy juru ñaari prophètes yi nga xam ne ñaari religion yi ci la bokk waaw damay laaj koo war a dialoguel respecté ko ba tudd maamam naroo jàmm hmm? nit ki boo ko naroon a insulté kan nga koy tuddal ay way juróom waaw kon kay koo teral tuddal ko ay way juróom am nga respect ci moom yàlla lii la nar a jàngale muy jàll boobu presque saar bi yëpp nag lii rek la léegi nag bi dialogue boobu passé euh, ba ñoom ñu ñibbi ak yecca fa mu mujjee yëpp conclusion yi après dina ko leeral léegi ci saa si maanaam bi Badar amee ak yecca xewoon ak gàcce gu rëy ga xew ñu koy jubilé pare gu ñu relation bilatérale bi ñëw mais mais dafa am benn effet bu mu def màkk màkk ba ñu ñibbee Abu Soufiane il se sent il se sent un peu choqué parce que mag ñi dee ñëpp kër goo gis borom kër ga dee na te borom kër yooyu dee sauvé kan moo taxoon ñu dee sauvé ko moom moom Abu Sufyan ndax moom lañ doon gàttalu moom mu déjoué après daw ñibbi mais mag ñooñu nag doon ko sauvé si moom ñibbi na moom ñibbi na ak lam ñamu àndal ñooñu doon ko sauvé si kenn ñibbiwul ba tey moom nag mu ne une dette lay def boppam mooy balaa tëddati wala mu nelaw wala muy bokkate jigéen lal dina demat defal vengeance ñi ko doon sauver ji ba dee ci àll bi ñeneen ñi nga xam ne dañ leen jàppaay otage otage ñu nga Madina balaa noppalu dinañ leen jote ba ñoom ñëpp dellu sewaat seen kër léegi nag looloo tax mu jox rendez-vous yonent bi dans douze mois daje dajewaat ma def sama vengeance loolu mooy xaswatu Uhud xaswatu Uhud boobu douze mois après je veux dire mooy badar bi weeru koor la bu weeru koor ñëwaatee du doucement dañoo wore rek Badar euh, euh, euh, Uhud xew Abu Sufyaan bi yoon moo ànd ak trois mille personnes au delà de mille yële ñu àndaloon mais léegi trois mille personnes la àndal ñu bari ay mercenaires lañ ñu fay leen ñu ñëw ba ci nooru Madinatul wara dañ ko wër ndomb ba ci noor bi campé fa yónnee ndaw ne yonent bi na ñëw bu dee am am na fit ñu def suñu vengeance ndax daaw li mu def ñaaw na torop ci ay waajuram yonent bi wax ak jullit yi ñu ne ndax dañuy rester ci dëkk bi wala duñu rester ñu waxtaan dialogue ñii ne nañ toog ñii ne duñu toog mais dafa am ci xale yi dëkk bi ñoo xam ne dañu regretter lan moo tax ba tey demuñu woon Badar ndax Badar 300 personnes rek fa dem te li nekk ci dëkk bi ci jullit ëpp na ñaari junni kon lu tax loolu ñoom demuñu loolu metti leen ba ñoom ñoo daan ñaan matin et soir yàlla yàlla ñu may beneen occasion ñu wan la niñ la gëmee. wan la suñu pas-pas ci lislaam di ko ñaan nag di ko ñaan biñ déggee nag Uhud taxaw ñu ne occasion bi moo ñëw euh, kon nag duñu toog ci dëkk bi dañuy dem xeexi ji ndax ñoom demuñu woon am ku ne déedéet wóorul parce que dëkk bi Abdullah ibn Ubay moo ko wax ku ñu fi masa xeexal toog ci biir dëkk bi boo ñu fi fekkee ñu duma ci biir dëkk bi waaye bu ñu génnee dem ci àll bi dañuy vulnérable bu boobaa dañuy écraser ba pare ñëw coloniser dëkk kon nag ci li ñu li ñu suñu histoire may ci xeex yi ñu fi daan xeex a à l'avance mooy dañ daan toog ci dëkk bi ku ñu fekkee ñu xeex ak moom taw euh, li bari Hamza ibnu Abdul Muttalib moom it mel ni ku repp ci xare bi ne par force dañuy génn gis nga ñi ci gënoon a acharné ñibbi bisiwuñ ñooñu nag bi ñu waxee insister insister yonent bi julli jumaa ba sëlmal ñu insister muy wax presque ba tàkkusaan ñu ne daal faw ñu génne mu ci la dugg nag moom li doon idée mooy mu toog ñoo ñu fekk ñu fi ñu xeex ak ñoom mais comme insisté nañ mu dugg solo bi mu soloo nag bay génne sol euh, ay arc mag ay anti bala mag yu kenn xamul am mag ñu waxtaan ne def nañ erreur ndax yenent bi li ni mu bëgg daal li mu bëgg lañu waroon def te moom dafa bëgg ñu reste ci dëkk bi bi mu génnee ne nañ dem ñu ne ko non dañ ne woon daal xalaat nañ comme yow lii nga bëgg mu ne ah déedéet nag se trop tard yenent bu xësee solu nag ba génne di xeex noonam yàlla xaraamal na ci moom muy delluwaat néegam ndax day mel ni défaillance bete yàlla atte digganteem ak noonu noonam léegi nañ dem amatuñu choix ci la gaa yi génne vendredi tard du soir bi ñu demee ba génn dëkk ba ba seen yéefar yi après ñu campé du guddi gi dugg timis geewe bi ñu campé foofu ba ba ñu xëy muy samedi samedi ñu xëy le matin juif yi nekk ci dëkk bi ñu ne leen doo leen dem jàppale ci yonent bi ñu ne oh ça fait l'occasion tey la samedi te ñun samedi yàlla def ñu tere ñu liggéey wala ñu def ci benn activité ñu dem vraiment vraiment bëggoon nañ kii mais mënuñu noonu juif yi di wax pare guñu <clears throat> yonent bi mille personnes a topp mille personnes léegi tey du trois cent treize mais mille personnes bi ñu demee nag ba janook yéefar yi ba ñu campé samedi matin bi Abdullah ibnu Ubay moo xool gis magi màkk yëpp ak ñu naxari deret yi ñëw ndax xam nga kuy venger wu du ree Abdullah ibnu Ubay feq la moo jiite naafeq yi mu ne vraiment yonent bi daal dama bëggoon nga jox ma rek ba dellu kër ga ndax xale ak fay xaar te damay mag am na yoo xam ne mënuma ko yonent bi nekk heure bi mën ko déedéet dafa fekk rek xam nga xamee mu ko woon ni ay xeex laak yii man dama foog da ngay génne dem rek ma la doon gunge mais vraiment man daal damay dellu ñàkk nag lu muy def ne yéen ñi ma yen nangu sama kàddu te di ma dégg déggal euh, delloo leen ànd ak man ñu bari ci jullit yi ak naafeq yi fax topp ko ñii di dem ñen ñenn ñi di leen te yéen yéen ay traître ngeen bu leen dem ñu nekk ñii dem góor gee ñu oo góor gee ñii di dem ba banu xaarisa ak banu sulaym salamata di ay ñaari giir yu am doole ci dëkk bi ñii bokk awsu ñii bokk xas rek neen daal famille Njóobeen ak famille Njaayeen demoon nañ ba nar a fax pour ànd ak góor gi te ñooñu bu ñu demoon moom daanaka armée bi jeex mais mujj gi ñoo ñoo yeddante seen bopp yeddante seen bopp bu mujjee resté bi ñu resté nag alhamdulilah mais góor gi réussir na yóbbu trois cent personnes ci ci mbooloo waa mille personnes bu ci trois cent demee te mille yi sax matul woon lu xew sept cent rek a fa des ñu ne oh ñun am nañ defet ba pare. parce que 700 personnes mënuñu résister 3000 personnes te 700 personnes mal armées ak 3000 euh, personnes yoo xam ne bien armées lañ mille personnes yoo xam ne dañoo ñëw pour venger wu 700 yoo xam ne dañoo ñëw pour dékku leen mën na ànd mooy première défaite gi loolu moo mujjee am Abdoulaye ibn Ubay na non xam nga damay dem yëwut yi jàmm nañ leen ne samedi la tey samedi bi itam de que euh, kii yi euh, Abdoulaye ibn Ubay dem na ak 300 personnes. booleeg ñoom ñu ngi doog a wori tartal gi ñu amoon yëpp yem na ci koor gi mosu ñoo wóor ñoom ñu ngi lakk lakk di lekk yeneen bi nag ne yàlla rek a fi des mais ñi doon wax ne dañ bëggoon xare yeneen bi ne seen occasion ngi nii kon nag wane leen li ngeen man ñooñu nag ñoo ñëw le samedi yeneen bi sàppi jullit yi jël raaya bi jox ko tabaarakallahu mus'ab ibnu umar euh, al abdari nga xam ne bani daar la bokk euh, sàppe ali Chappé Hamza ne leen diriger leen guerre bi ñu defaroon ko moom xayma ci gannaaw Uhud nag mu ngi nekk ci noor extrême bu Makka maanaam bu Madinatu Munawwar ci nord bi yeneen bi ci stratégie mu ñëw ba ci euh, maanaam maanaam maanaam wetu wetu maanaam wetu montagne bi ci la ci la ci la sàppe jullit yi sàppe leen jullit yi nga xam ne kon montagne bi ñoom ci la sës am nga li ma la mm-hmm. mu mel ni nit ku taxaw toog wéeru moom nag mu dem ba ci euh, catu montagne bi ñu defal ko fa xayma mu toog fa moom toog fa di man di euh, organiser xeex bi mais mu xam ne xeex bi dafay am lu ñuy tuddee vue panoramatique mooy vue boo xam ci kaw ngay xoole defe naa di nga gis camp boo gis di nga fa gis fu jool a jool fu nit di taxaw yeneen bi ne comme soxla ne vue boobu ci la jël ku ñuy wax Abdullahi ibnu Jubayr ne ko yow ak soixante-dix personnes yëg leen ci kaw montagne bi ngeen tiim ñu maanaam ngeen tiim jullit yi ba pare di gisaale yéefar yi lu ñu bougement bu ñu mën a def ngeen seen leen de loin pour man ñu avertir bu ñu naree songo ngeen jël ay fett fett leen ko ba du ñu mën a agsi ndax ay fett yu la jëlee kaw yu la jugee kaw est-ce que mën nga ko delloo lii la yonent bi indi ci stratégie de guerre léegi jiital jullit yi def leen ñetti Euh, parti benn bi daneen naan sukkaleen boo leen sukkee ngeen ngeen ne bismillah allahu akbar ngeen sànneendoo fitt yi ci yëfar yi janoog ñoom ñooñu bu ñu fettee ba pare après dañuy replier beneen groupe génnaat ñëw taxaw sampuwaat ne bismillah allahu akbar ñu sànni encore après replier troisième bi ñëw ñu ne bismillah ñu sukkat ne bismillah allahu akbar ñett yi daanaka fekk na un tiers armée bi ci yëfar yi fekk na écrasé nañ leen léegi nag ñooñu bu ñu replier ci la gëpp la di jug nag ne allahu akbar di dóorante bi stratégie la yonent bi def ne nag Abdullah ibnu Jubayr maa ngi lay yëgal ne lu xeex bi metti metti mooy lanaa aw alayna bu bu ñu yéefar yi gañee wala ñu gañe leen lu mu metti metti yow bul bouger yow ci kaw ndax dañoo soxla yow sa vue nga mën a xam urgence yu fi am mel ni moom yàlla daf ko teel a informé wala daf ko inspiré ne dina am lu nar xew lu dul neex léegi bi ñu commencé xar mi xare bi loolu samedi matin la ci Korité bismillah yonent bi gaa yi def loolu def loolu solal yéefar yi gaañ leen ba amatuñu lu ñuy def Hamza yuuxu rek song leen Hamza géant la woon bu njool ca kaw bari doole wala ñu ko daan wax gaynde gi ku mu dóor kenn du laajte ci lu mu doon dee bu yàgg Aliou ibnu Abi Talib la waaye noonu la feesee ak graisse ak yaram umu mu dóor moom it nga jaar fële ñoom nag ñoo topp yéefar yi di dóor di écraser di dóor di écraser di dóor di écraser lii matinal bi matinal bi la ba presque yéefar yi déjà gaañ nañ leen deux fois bu njëkk bi mooy lan fett yi ñu doon indi gaañ na leen te yëf yi day mel ni day taw rek caw caw caw caw caw ba doo xamante looy def ñu def la ko trois fois ñii daanu ñii de ñu jékki-jékki Hamza ñëw mel ni moom dafa yor ñii daal ay doomam lañ mu leen di écrasé benn par benn Ali ibnu Abi Talib jaar foofu euh, Talxatu euh, Abu Talxa jaar foofu Saadu ibnu Abi Waqas jaar foofu mag ñi kenn ku ne di rey di rey ba ñu rey ci ñoom ci yoon wi gën a gaaw vingt sept personnes ñëpp de jullit yi nag di sar xool leen allahu akbar allahu rek yéefar yi ne pëccët daw trois mille personnes yaag coow laag ñëpp ne pëccët daw di daw di daw léegi nag jullit yi toppaleen jullit yi nag bi ñu leen toppee di leen daq ñuy daw ñu toppaleen di leen daq ñuy daw waaw koy daw ak fitna du fàtte ay bagage bi ñuy daw nag ñoom yéefar yi di fàtte seen bagage yi ñii di bàyyi seen sac yi ñii di bàyyi ci kii yeneen ci bi daf leen waxoon avant xare bi ne leen lu ci waaye fort ci butin yaaka moom ñu mujj a fàtte nag xare ba bi xëccoo butin ya maa moom bii maa déedéet bi maa ko jël bii maa rey waa ji maa moom bii maa moom butin yooyu nag ñuy jël ci lañ mujje fàtte dàq ba léegi biñ leen daxee à peine cinq cent mètres sept cent mètres ba ñu sori ñu ne ñu commencé ree nan ñëw gañe nañ leen kex kex kex commencé Euh, maanaam for butin bi mais dañoo daw bi yéefar yi dawee nag un kilomètre dañoo taxaw xam nga léeg ngay daw ba yàgg taxaw na xool li ngay daw lan la Abu Sufyaan toog soog a toog jabar ji nag tiim ko jabar ji nekk déedéet doo mën a dawe nii Abu Sufyaan jabar ji Hind bintu ba nekk doo mën a dawe nii ndax sama papa défendre la moo tax mu rey boppam frère am dee na ci muy Shaybatu ak rabiatu ak okbatu ak sama frère ñooñu mënuñoo dee ngir yow nga bëgg a dawaat nii ñibbi màkk doo daw ma ne da ngay xeex laa wax Abu Sufyaan ne wax na dëgg ñun fàtte nañ sax cause bi ñu taxoon a xeex te muy vengeance ci lañ waxtaan nag seen biir Khalid ibnu Walid mi nga xam ne mooy Sayfullah njool ca kaw deux mètres et moo taxaw ak Amr ibnu As ne vraiment li ñaaw na li ñaaw na torop torop torop am ku leen ne yéen ñaar ñii bu ñu rayoon seen ba bàyyi ci euh, euh, euh, badar doo leen dawe nii ñu rus nag doon doon nañ ay xale yu góor entraîné nañ ba jàpp ñu ne léegi nu ñuy def Khalid ibnu Walid nag ne léegi léegi kaay leen ngeen waraat ma mu moo réorganiser nag armée bi xool nag xool xool léegi nag di leen jàng di jàng jullit yi mais bi muy jàng julli ji mu ngi leen gis kenn ku ne maa moom bii maa moom bii eh eh bii maa ko moom maa moom bii ñu ngay xëcco mu ne ñii de talatuñu lu ñu nekke kon mën nañu réorganiser wu ba jëlaat xare xare bi mooy nañu defaat demi tour ñun ñun nañ replier wu euh, pour jaar ci gannaaw dem ba côté noor ba wërleen leen ndomba ba dem ba ci gannaaw montagne ba bu ñu demee ba ci gannaaw montage ba après ñun dinañ leen bett doxe leen gannaaw écraser leen mais stratégie boobu ñu nar a def kan moo leen ko war a mën a tere kan moo leen ko war a mën a tere non kan moo war a mën a tax duñ mën a def loolu duñ ko mën a réaliser ah mooy ñi ne ci kaw ñooñu nag ñoo wàcce ñooñu ñoom ñoo gis ñuy séddoo te ñoom yeneen bi nee na leen. boo leen gisee ñu gañe ñu ak ñu gañe lu ci mën xew bu leen wàcc yéen ñooñu nag ñoo ñoo wàcc ñoo ne eh eh guerre bi tas na guerre bi tas lii matul 40 minutes matul une heure de tas na guerre tas na eh nañ dem xëccoo ji Abdoulaye Ibnu Jubayr mi doon seen mi doon chef régiment bi ne leen waru amu leen droit wàcc xanaa déggu leen li yonent bi wax bu ñu gañee bu ñu ko gañee yëpp bu ñu wàcc ñu ne ko yow da nga dof guerre bi jeex na dinañ toog fii te duñ seddu ji. ñooñu nag ñooy wàcc muy bañ ñuy wàcc ba mu des dix personnes ñii ne sept léegi nag bi Xaalid ibnu Walid ak Amr ibnu As wëree ba ñëw fekk fekk fa quelques milliers de personnes quelques quelques personnes ñooñu la doxe gannaaw dóor leen ay jaas yi résister nañ mais da leen rey bi mu leen reyee nag tiim leeg montagne bi est-ce que léegi yiliful xare bi bi mu ko yoree yilifee nag seen leen de looy ñii di xëccoo fii ab sac ñii di xëccoo fii benn ceen ñii di xëccoo fii benn yére ñii di xëccoo fii benn fas ñii di xëccoo benn gëléem mu ree ci la wax nag moom résumé moom Xaalid ibnu Walid ak ñi boy yi mu àndal ne leen léegi nag songa leen leen ñoom en retournant xam nga ñële bu ñu foree yi ñu for ba fare du ñu war a ñëwaat léegi bi fi ñu war a retourner seen digganteeg yonent bi la yéefar yi dugg ndax ñoom kenn rek lañu ñu waroon défendre muy kan yonent yàlla Muhammad te yonent yàlla Muhammad mu ngi ci suufu montagne bi nga xam ne fa la campé moom ñi ko waroon a xeexal ñu nga dem fële ca àll ba léegi nag ñoo ñoo dugg nag ci diggante bi léegi ñële doon retourné bu ñu retourné ci kan la ñuy yem ci yéefar diggante fii ak yonent bi luñ ko mën a def est ce que dañ ko fekk ñoom ñoo jug taxaw nag ne uqtulu muhammadan ibnu qami'a abdullah ibnu qami'a moo jug taxaw ne suñu priorité mooy nañu rey muhammad rek mu jeex benn léegi nag ñu ko biñ ko songandoo fekkatul xayma bi lu mat dix personnes ne fi te ñii mbooloo bu rëy lañu ñoo ñëw nag dammate xayma bi song ko fekk ndekete a auparavant dafa am ku ñuy wax Abu Rahib al-Fasiq kooku moom musul d'accord ci islamisation wu lansaar ay bokkam mais amu ci pexe moo waxtaan ak waa mak makkatal mukarrama ne leen boo leen xeex ak ñoom dinaa leen dimbali ci change de bataille mooy lan. dinaa ànd ak ay booy vay bi ñu gas fa ay fossé ay pax pax yoo xam ne buñ ci dalee rek dañuy daanu dañuy pëtëx ndekete yonent bi fiñ ko defal xaymaam à côté benn pax bu rëy moo fa bi ko yéefar yi nag dóoree ñii di dóor jaasi ñii di kii Saad ibnu Abi Waqaas ci la yuuxu Abu al ansaar yi yuuxu ñu ne kaay ci Muhammad ñu ne kaay leen ci Muhammad ñu ñëw ci buntu xayma bi taxaw léegi euh, mais ñaari nit ñetti nit mënuñu mënuñu défendre kenn ñu dóor ñu leen di dóor ay jaasi bu dee ab Saad ibn Abi Waqas yonent bi nee na dëgg dëgg gor gor gor suy dox àjjana te nekk ci àdduna mu ngi nii moom dafa tëral boppam dafa tëral boppam ci kaw yonent bi ku ñuy dóor boo doxee digganteem ak lañ koy doore liñ dóor fa fa lay yem moo tax góor gi nee nañu dóor nañ ko lu mat soixante-dix jam-jam ñii di dóor jaasi ñii di door ay fett mu tëdd rek ci kawam du dujaanata al ansaar yi moom it dafa tëdd ci kaw yonent bi léegi nag bi ñu sonalee ñooñu ñoom ñu wan leen gannaaw maanaam ñu jaare xayma bi ci gannaaw abdullah du xami a moo këdd yonent bi bi mu ko këddee ci dënn mu daanu nag jaaxaan ndekete bi mu daanoo jaaxaan paxa nga foofu à côté mu rës dugga foofu ci pax mi moo tax ku foog ne yonent bi sonnul xaw ma yow foo ne yow mi toog ci kilim naan lii da ngay liggéeyal yonent bi de laay wax na mi gën ci yàlla bi ne lii la de bi mu duggee nag ci pax mi ñu fekk ko fa di ko rokkas ay jaasi ñii di ko rokkas ay kii mais moom yonent bi dafa mel ni dafa xamoon te looloo am laata muy ñëw dafa sol benn gilet enti fer hmm, boo xam ne da ko jiital ñu ne déetawaay mu tegaat ci beneen te loolu mos koo def ba pare sol casque en fer ba pare sol xuusa maanaam comme ni euh, ñiy sol ñiy dugg ci moto jakarta yi casque yooyu ñuy kii ba pare defar ko loolu la defar looloo tax téere yi ne keroog loolo taxoon mu diis ba moom bi mu duggee ci pax mi mënul yëkkiwaat boppam parce que li mu amee ci fer rek xaw naa mat cinquante kilos léegi nag duur yi ñu ko doon dóor looloo tax mënul dal ci yaram bi carrément Ibnu Qami'a nag bi mu xoolee di ko rokkos noonu ci kii bi nu euh, ci pax mi ba dafa mujjee mer jël benn fetam jam ko nag ci gémmiñ gi benn espace bu fa bu fa doon feeñ nga xam ne yonent bi casque bi mu ngi ko solee bët yi rek ngay gis bi mu ko jamee nag ci ci ci ci ci ci euh, gémmiñ gi fer boobu dafa mujj dugg dafa dugg romb tuñ bi maanaam jam tuñ bi ba dugg ko fekk bëñu kaw gi sell bi ci kaw mu jam ko ba daaneel bëñ bi maanaam maanaam maanaam fell bëñ bi daaneel ko Euh, dugg ci biir léegi yonent bi ne génneel leen ma fitta gi gaaw génneel leen ma fitta bi ñu bif ko ak doole bën bi bëñ bi dañaale deret ji sànni nan car car car car car yonent bi naan ilayya ibadallah yéen jullit yi ñëw leen défendre ma yéen jullit yi ñëw leen défendre ma deret ju bari jooju nag tuuru moom la Abdullah ibnu Qami at génne ne Allah laqad qataltu Muhammada rey naa Muhammad rey naa Muhammad léegi nag audio boobu doon écho di wër ci xeer champ de champ de bataille jullit yi nag de loin ñoo dégg loolu rey nañu Muhammad rey nañu Muhammad xam nga yëfar yi ñu ngi ci digg champ bi léegi nag ñoom ñooñu ñëwoon nag yéefar yi mel ni ko mer di leen xaar ku ñëw ñu dóor nga daanu de ku ñëw nga dóor ñu dóor nga daanu dee ku ñëw nga dóor daanu dee en retournant Hamza ci ñi doon retourné la bokk bi mu ñëwee agsiwul ci yonent bi fa la ko Ali ibnu Abi Talib moo def ay pexe mu jéggi nag Omar ibnu Xattaab ak Aboubacar Siddiq ñoo njëkk a ñëw ci yonent bi gannaaw Abu Talha bi ak Saad ibnu Abi Waqas ak Abu Dujaanat al Ansaari ñooñu nag bi ñu ñëwee euh, ñu ngi fekk yonent bi kenn xàmmeetu ko ndax deret waaye mu ngi ci pax mi mais yonent bi comme nee nañu dee na moom bu nee ma lu ñu def te yëfari soriw ñu léegi ñoom ñaan rey nañ Muhammad ñii nag daanu di do jooy Omar ibnul Xattaab nag toog di jooy yaramam yëpp articulation yëpp bàyyi euh, ñenn ña lay jóge fële nag ci cadre bi ñoom jullit yi di ñëw ñu leen di rey ñoo ñenn ñi ñoo mujj a teggi di daw di dem ñibbi pour dem ma Madinatul Munawwara Ousmane Ibnu Affan mu baax mii ci la bokk daw di ñibbi ma ne fu Ousmane ñibbee Omar daw kan moo fa desati bi ñuy daw nag di dem di dem Nadr ibnu Anas moo dajeek ñoom ne leen foo leen jëm ñu ne qad qutila rasulullah rey nañ Muhammad mu ne leen we mais de plus. yéen bu ñu bu ñu reyee Muhammad léegi xanaa cause biñ ko biñ ko reyoon daf fi des wala daf daf daf fi jóge moom ñu ne déedéet ah non xanaa xamuñu ne mu ne dem leen xeex yi ñooñu nag ci lañ replié wu léegi yéefar yi bi mu leen wóoree ne rey nañu Muhammad ñoom it ci lañ replié wu ne daal duñ nekk fii de attardé wu ndax kiw taxoon ki taxoon ñuy xeex dee na léegi nañ dem ñoom nag ci lañ dem doole xam nga loolu bu ci yàlla jàppal woon keroog la lislaam di arrêté hmm? léegi nag biñ demee doole. dem ñibbi dem ba côté bale xam naa jullit yi ñoom daw nañu dem mën Madina Munawwara jullit yi euh, maanaam yéefar yi nag dem ba doonaat benn camp bu am doole vingt sept personnes rek lañ leen reyal ci ñi njëkk mais ñoom diggante bi ci mbumbaay gii ak pécc xoo bii nga xam ne jullit yi xamatuñ fu ñu taxaw rey nañ fa soixante dix personnes ci dignitaire ñoom it yi gënoon a am influence ci jullit yi loolu disul Hamza ci la bokk Euh, Abdullah ibnu Amr ibnu euh, euh, Haram ci la bokk ak mag ñu bari Saad ibnu Rabia ci la bokk mag ñu bari ci dignitaireu Madinatul Munawwara rey nañ leen keroog ak Makkatul Mukarram loolu nag dëj musul musul am ci lislaam bu gën a metti bi jullit yi nag bi ñu ñëwee daw ñu ne leen après yéefar yi dem taxawe na le ci la yonent yàlla Muhammad nag ne oolu Aboubacar ndànk oolu Omar ne leen may leen ma loxo Aliou ñëw ñu may ko loxo ñu jàppandoo dar dar dar dar ba mu génnaat ba mën a toogaat ci xayma bi ñu génn fitt yi fa nekkoon la fa nekkoon ci deret ñu xool nuñ ko Fatima Zahra doomam ci la ñëw fekk fitt boobu Ali buddi ko bi mu ko buddee buddee mu naan car car car téere neen lu ne faja nañ ko ko deret ji mel ni luy sotti deret ju toll noonu ku muy génn ci yow bu yàggee luy xew dee Fatima moo daw ñëw ne bàyyi leen ma may leen ma uti benn alimet koset ci waxin taal benn morso benn morso lakk ko ba mu lakk mu jël ko rek saañ ko ci euh, euh, euh, maanaam góom bi sell bi fi mu ne énergie bi tax deret ji arrêté bu Zahra moo def lool après mu faj ko yonent bi nag mel ni kuy miir ndax li mu génn ci deret bari na yëfar yi taxaw fële naan ñaw jeex na c'est fini waxi Muhammad tàbbi na géej jeex na nangam nangam. léegi nag ci lañ koy waasee nag di joxe rumeur yu ndaw Mouhamad deewul Mouhamad deewul Mouhamad deewul mais yeneen ci par anticipation moom man wax nañ ne fekke na dëjëm ndax keroog que comme jàpp nañ ne dëjëm la léegi gis na moom même bu deewoon sax nan la gaa yi di réagir loolu moo xew keroog après nag bi ñu demee ba yëfar yi xam ne Mouhamad deewul ñu mujj di xas waa ji waa ji ko waxoon nekk ko ibnu xam ay yaa ne woon dee a mu ne non. man dama gis ku daanu dee ndekete Mus'ab ibnu Umayr dañ wax ne boo ko masaane gis day mel ni Muhammad nga gis moom ndekete kooku la gis mu daanu dee mu ne kii mooy Muhammad waaye effectivement jam nañ ko ba daaneel ko fële waaye jotul dee na lii nag léegi ci la yéefar yi dem taxawee na la jullit yi ñëwaat commencé dajaloo ba ba ceinture ci yàlla Muhammad xam naa ñi woon ci montagne moom dee nañ bu yàgg Abdullah ibnu Jubayr rek keroog lañ ko rey ak dix personnes ya mu dese woon ñi ci des ne xujj xujjaaral di xoole mais butin est-ce que jar na loolu waaw mais anarchie bi am yàlla du ci wax léegi nag foofu ñu nekk après yéefar yi euh, Abu Sufyaan moo taxaw nag di yuuxu ne ana Omar ibnul Xattaab non non yaa Muhammad yaa Muhammad woo Muhammad yonent bi ne noppi leen ñetti yoon mu xaxataay reena dee na billaay dina dee xamoon na ne dina dee ana Abu Bakar wax Abu Bakar ñetti yoon yonent bi ne ko noppil rek. mu ne Aboubacar dee na itam mu ne ana Omar wax ko ñetti yoon Omar nag mënul muñ ne maa ngi nii laa wax lan la ci kaw mu ne ko yow Omar yow laay laaj kon yow deewoo mu ne ko déedéet mu ne ko dama la doon laaj ana Muhammad mu ne ko huwa yasma'u sawtaka al an mu ngi dégg sa baat nii mu ne ko kon deewul mu ne ko mukk deewul mu ngi nii di la dégg mu ne ko yow de laa gën a gëm ci ibnu xami alim wax ne moom rey na ko mu ne ko mu ngi nii di la dégg dala wuyuwul rek mu ne ko ana Aboubacar mu ne ko Aboubacar mu ngi nii di la dégg dala la wuyuwul mu kon yéen ñett deewu leen ana Aliou mu ne ko mu ngi nii di la dégg Hamza ñoom xam nañ ne dee na mu ne waaye garaaw li ñu jot a am doy na doy nañu vengeance Abou Soufiane ne léegi kon ñun li ñu jot am ñu am nañ vengeance parce que fayu nañ rayaloon ngeen ñu xaswatu Badr soixante dix personnes fay nañu ñun fayu nañ ñun it soixante dix personnes kiif kiif. léegi nag amatul len loo ñuy loo leen ñuy war a yabe Omar ne ko waxoo dëgg ndax ñun suñuy martir yëpp àjjana lañ jëm te yéen seeni moor safara lañ jëm kon doonul benn mukk mu ne loolu yow la concerné mu ne ko allahu mawlaana wala e, ulu hubal ulu hubal ñu Abu Sufyaan ne tey kontaan nañu parce que suñu xirim bi naxuñu muy hubal yonent bi naka tontu leen ñoom ñu ne allahu mawlaana wala mawlaanakum ñun suñu kilifa kenn la muy yàlla xam nga suñu xërëm mooy suñu kilifa ak yàllaay suñu kilifa sore nañu Abu Sufyaan ne nag coow li jarul a bari comme kenn ku ne yaa ngi nàcc di deretal léegi bàyyi leen ñu dem joxantewaat nañ rendez-vous déwén bi ñu joxantewaatee rendez-vous déwén nag dem jullit na commencé yeddante yow mii la yow mii la yow mii la yow mii la yonent bi nag yedd ki daal jaruko ko yàlla lu ko soob lay dogal defar leen seen néew yi ñu gas li des nag ci samedi bi ay bàmmeel lañ doon gas di gas ay leeñ euh, yonent bi tëral leen ne leen budul wallahi budul woon bañ ñu roy ko ba addunay tukki ci sama gannaaw dinaa bàyyi nii ñu tëddee ci champ de bi nii la tëddee ba yàqoo fi bu ñu yàqoo fii ba dé décomposé wu ba doon euh, ay yax yu fënax ëllëg yawmal qiyaamati dama bëgg yàlla dekkal leen ci champ bataay bataille bi ñu daggu ndànk dem àjjana ndax xam nga dama doon xeexal yàlla ba dee ca am na lu gën a gaaw mooy nga dekkee fa nga deewee woon hmm? mais comme nag du rafet ci gis-gis loolu tax gasal leen leen ay bàmmel ci lañ leen gasal bàmmel ñu teg soixante diis cadavre mu jël góor gi Hamza teg ci kanam jullee leen téere ne keroog bi mu leen di jullee xaw la mën a téye boppam ndax Hamza mi dee Hamza rek la dese ci papa ci àdduna mook Hamza ñoo bokk ndey ndax xaala mi jur Hamza ak Amina mi jur Abdullahi seen ñaari baay bokk ndey ak baay kon doomu ndeyam la ba pare ñoo nampandoo ci suway batu kon ñoom ñoo frère la ba pare góor gi Abdul Muttalib ñaari doom yu góor la fi dese te muy euh, Hamzatu bi ak Abbas te Abbas mu ngi ci Makka kon ki mu doon xoole baayam rakki baayam moo dee tey keroog jooy na lu mu mosula jooy nit téere de jullee na Hamza soixante onze fois ndax dafa teg Hamza jullee ko après ñu andil ko beneen néew mu jël néew boobu tëral ko ci wetu Hamza julleewaat ko mook Hamza jëlaat beneen néew teg ko ci wetu Hamza julleewaat ko mook Hamza kon jullee na ko soixante onze fois bi mu jullee Hamza ak euh, euh, soixante dix fois am ñu ne déedéet néew yépp lañu ñu tegandoo mu jël Hamza teg ko ci wetam jullee ko keroog nag bi loolu xewee ak ñi ñaawee rayin bi wax si yu rey ko nangam na naam Safiyatu daf ko dégg jóge dëkk ba Safiyatu nag ak Hamzatu rek ñoo fi bokk ndey ak muy bàjjanam moo jur Abdullah ibn Zubair bi mu ñëwee ñu mu ne sama nijaay gaañu na mu ne ko faw ma dem ba xool sa nijaay bi mu ñëwee ba fii ba ci champ de bataille bi yonent bi dafa ne delloo leen soxna si ndax damay bañ mu gis ni sama baay mel Safiya ne ko xanaa da nga fàtte ne doomu Abdul Muttalib la lu góor mas a mën a gis ci ñun jigéen mën na koo gis suñu njàmbaar yegg na mu ne ko mbaa doo saalit mu ne ko déedéet bi mu ñëwee dafa fekk góor gi Hamza dañoo butti biir bi génne boutique yi def ko lu kenn mënu la nettali génn bët yi butti bët yi eh, ñaas kanam gi mu jooy ne ko billaay boo ko deewewul woon nii ma xam ne défendroo sa doom te jigéen ay wax de tey de rusloo woo ma billaay défendre nga sa doom ba des fii ci àll bi dellu ñibbi nag jooy ñu suul ñii bi ñu suulee ñii maa ngi lay yëgal ne keroog laa wax ci xeex bi ko amul dëj ci dëkk bi amul bi ci des mooy ku deewul am nga gaañ-gaañ boo xam ne nii ay fan di nga ko faj léegi nag samedi boobu biñ fa yendoo ba guddi ga après ñu suul ñëpp tabaarakallahu euh, dimanche ñu xëy maanaam samedi soir tard ñu dem ñibbi nag ci dëkkam euh, Abdullah ibnu Ubay mi mi ñibbi woon ak trois cents personnes ñëw naan ay yéen ba ma seen coono ay yéen son na ngeen ñun de wax lii de lañ leen doon bañal lii lii rek lañ leen doon bañal moo ngeen ànd ak ñun rek di ree nag di ngóobi ñu nekk ci métit boobu fanaan dëkk bi yëpp yaa ngi dégg kuy jooy mel ni bésu fet ni ngay déggee bruit yi ak musique ku nekk di jooy ku nekk di jooy yonent bi génne doon doxantu romb kër Hamza déggul kenn di jooy mu ne amma Hamza amma ahlu Hamza fala bawaakiya lahu ay waay ñëpp a ngi am ku leen jooy ba ma des ba mu des Hamzatu ibnu Abdul Muttalib mi sayyidu shuhada moom ne kenn jooyu ko ndax ay parental rek la am waa Ansaar bi ñu déggee loolu ci lañu ut lu xaw a jege fukki jigéen ñu ñëw ci kër Hamza jooyo jooyo jooy yonent bi ne kuy ñuy jooy noonu ñu ne waa Ansaar ñooy jooy ñoo lay jooyal sa baay Hamza ci la yonent bi ñëw nag ne doy na doy na après dem euh, nuyu ji Ummu Umaysin mi nga xam ne moo doon soxnaam ak Imarata doom doom yu ndaw yi fa kii raay leen ne leen muñ leen may seen baay gannaaw seen baay lii xew na bi ñu fanaanee nag samedi bi dimanche matin. ndekete Abu Sufyaan dafa ñibbi dem ba xaajal diggante Madina ak Makka ñu toog nag campé di yeddante ne ñun du ñu dara ñun bu ñu yeggee makk ne gañe nañ Muhammad ñu ñu ne ñu indi leen preuve yi fo fan lañ koy fan lañ koy wane ndax ñoom bi ñu gañee dañoo rey soixante dix personnes ba pare jàpp soixante dix personnes otage mais ñun jàpp ñu kenn <laughs> xam nga ñoom dañ daw ñun jàpp ñu kenn kon buñ demee ne gañe nañu Muhammad nan lañ koy gëmee yow kur ñu ne waaw ñun dañu war a teel a dañoo teel a ñibbi dañoo teel a ñibbi dañu war a delluwaat yeggali leen benn yoon leen te nit boo ko rey boo boo ko gañee da nga war a coloniser dëkkam te ñun rey jàpp ñu ci ñoom otage coloniser wu ñu dëkk bi ñu ne wax nañ dëkk wax nañ dëgg ñu ne kon nañu fanaan bu subaa ci dimanche bi ñu delluwaat jekkali leen ba ñu fanaanee dimanche matin romb nag benn waa ji ñuy wax Nuaymu ibnu Mas'ud at-Taqafi euh, euh, euh, al-Ghatafani kooku nag bi muy bi mu leen romb Abu Sufyaan ne ko foo jëm mu ne ko dama bëgg a dem côté Madinatu Munawwara mu ne ko loo bëgg ci xaalis naa la ko jox dama bëgg nga yóbbul ma benn lettre oral mu ne ko lettre bi lan la mu ne boo demee ci Muhammad nee ko Abu Sufyaan nee na léegi guerre psychologique lay def de moom Abu Sufyaan Abu Sufyaan nee na ñoom dañoo réccu sax li tax ñu ñibbi ba fi mu ne nii renfor renforcer nañ seen armée ba ñoom ñu ngi ñëwaat pour song Madinatu Munawwara écraser ko une bonne fois loolu boo ko waxee rek ñun ñu ngi wàcc ñu ngi topp sa gannaaw xanaa loolu bataille psychologique la bi nu ay mu ñëwee wax loolu yonent bi yonent bi dafa ree nekk xasbuna allahu wa ni'mal wakiil xasbun yàlla fi ne mu ne ah doo tiit mu ne que lu may tiit amu fi yàllaa fi ne léegi nag yonent bi ci la olu jullit ci informé leen ne nañ ma ooteel ci jàkk gi képp ku demoon démb euh, euh, ci xare ba soxlawaat naa la lii léegi réunion d'urgence mais ñi demoon xare ba ñu ngay fajuju ñu ngay faju ñii ñu ngi tëdd ñi yeewooguñu ñu oolu leen réunion d'urgence yeneen ci bi jël leen seen fas léegi léegi seen jaasi léegi léegi jibril nee na léegi la fi wàcc yàlla nee na nañ dem dabu ji yéefar yi kenn ku ne nag bi ngay faj wérugul ñii di nelaw ñii nekk ci coono ñi nekk ci d'ailleurs y compris moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi taf kanam gi ñenn ñi ne vraiment ñun loolu nag mënuñu ko ña dogg nag ñoom ñoo génnaat dëkk bi daw di song ji Abu Sufyaan Abu Sufyaan bi ko benn ndaw nag nee ko Muhammad génn na ak mbooloo mu bari nee nañ ñoom rëccu nañ lan moo tax waaye boo ñëwee tey lañ lay écraser benn yoon mu dee Abu Sufyaan dafa ne non Muhammad du nit ñi ñu bàyyi démba ku ñu ci reyul gaañ nañ la bu dee ñoom ñoo amaat kàttanu jub ne dañuy dal suñu kaw ñii bu ñu fekkee fii lekk ñu benn yoon nañ ñibbi laa wax. nanu ñibbi ndax ñii bu liñ leen def yëpp bu ñu fi fekkee ren ñu benn yoon ci la ñu daw nag dem ñibbi ñu dem ba ci mm, benn teen bu ñuy wax teenu euh, euh, biiru abi utba muy xamraul asad fa la ñu ñëw fekk fa benn marché luuma ñu laaj abu sufyaan mu leen romb na fii ak daw yu méttee métti léegi jullit yi nag ci lañ toog ñoom comme comme foofu marché la ñu yendu fa di def euh, ay transaction def fa une petite commerce am fa dara jaay jënd seen marchandise jënd seeni i sëri ci jënd yu baree bari féexlu daal ba ngoon ñu yabaat dellu si màkkatal mo euh, madinatu munawara avec la tête haute du dëgg bi ñu ñëwee nag ci lañu toog nag installé wu euh, faj seeni góom nangam nangam léegi nag yeddante bi des yaa defoon lii yaa defoon lii loo xew-xew bii ma nettali li muy gudd gudd ci nettali exclusivement la ko yàlla nag euh, nettali léegi nag résultat bi moo fi des ñi ci commettre ay er-, er-, erreur bariwul yàlla nag commencé yet yi commencé dal yéen a ko def yéenay lii yéenay lii yéen a fi doon wax ne da ngeen bëgg a xare yéen yéen a ko waxoon di léegi ngeen dem ba pare daw daw ah butin moom ngeen doon xëccoo jaru ko euh, ci ci gàttal lii la yàlla dogal mooy ñaareelu thème bi ci saar bi ñetteel bi nag moo di euh, ku faaru Makka Euh, ak mushriki Makka dañu ñëw ci yonent bi ne ko yonent bu nekk mas na indi ay miracle yow lan mooy sa miracle mu mel ni lañ ko waxoon ci suuratu baqara mu ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wan nahaari la ayatin ulil albab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila loolu la tontoo pour dëggal tawxid jeexal saar bi kon lii moo doon présentation présentation suratu Ali Imran yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp bi mahdi fadli wa judi hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu